بيانا الخديم في المدينة برعان الله لدى الكناكي من كل جالب إلى المراكي أصب أن الله في قرم بسا قبل مبارس الواني خلبسا دان يا ريم عند دومي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 bi ma min jey li jag sasi xat xuttali maarum du kama uhibbu rabbi xaama ay sasi jaawaranil jamilu xaama jam sasi jinaanihi bi xayri madasi xaasanil baaxi min aseytaani xinda mamaraya wa fil awtaani xibaada dib tadaxtu bismillahi wa zawil malaahi wajjahtu kullal hamdi wa shukuri li maliki rahimi wa shakuri asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu bu baax mbokki jullit ñi ak mbokki taalibe yi di jiital ci nuyoo bi sëriñ Mouhamadul Muntaxa moom Cheikh Mouhamadul Basir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ci teg sunu sang Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacke moom sëriñ Saliou di ko ñaanal balay sa yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew te dañuy topp ci seen site bi nga xam ne moo di jàmm ji info di leen ndokkale ci weeru safar wu tedd wi nga xam ne ci lañu nekk di waajal bés bu tedd muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar kon mbokk yi ginnaaw nuyoo bi ak siyaar bi rek ñu ñëw ci jataay bi nga xam ne moom lañu fas yéenee def ngir waajale ko màggal gi ñu bokkoo tënk nag ci ay tomb yoo xam ne rek euh, dañuy tënk tomb yi waaye ngir jublu ci rek leeral ak lenn ci njàngaleem sëriñ bi ci ni nga xam ne noonu lañ ko euh, taxawee mooy fas yéene waxtaan ci euh, jëmmi màggal gi ci boppam naka la ko sëriñ bi digle ak lan moo waral jëmmi màggal gi ba topp tamit ñu fas yéene waxtaan ci naka la murit ci boppam mi nga xam ne moo tax nga xam ne moom la sëriñ bi woote woon ca Mbàkke Kajoor wax ne sama boroom yonent bi salaay salaam moo moo digal moo ma digal ne ma naa woote ci jaarale ko ci xit ma wax ne képp koo xam ne njàngum kese moo la fi andi woon mën ngaa wuti foo jànge waaye koo xam ne li ma bëgg nga bëgg rek mën ngaa ñëw ñu dem mu yoon wi nga xam ne moom lay andi woon ngir yeesal diine yonent bi salallaahu alayhi wa sallam buñ ca noppee nag toftal ci dëkk bu tedd bii di Touba nga xam ne moom fa la màggal gi di xewe te Serigne Fallou woote ko fa ci 1945 jëmmi dëkkam boobu nga xam ne mooy Touba ana yan njëriñ la Touba làmboo ak yan ñaan la ci Serigne bi ñaan loolu mooy tomb yi nga xam ne moom lañ fas yéene andi toftal ci rek xanaa jimmi murid yi ci boppam naka lañ yan taxawaay lañ war a am ak naka la Serigne bi waxee ci boppam murid bi moom mooy kan. ba ñu gën koo mën a bàyyi xel ba képp koo xam ne tuddoo nga ab murit rek nga xam ne am na melokaan woo war a mel woo xam ne sa kéemtalaayal kàttan te bañ ko wàcc. kon mbokk yi ginnaaw loolu rek dañuy tàmbali rek ci jataay bi njëkkee ko ci li nga xam ne mooy bis bu tedd bi ñuy waajal di 18 safar fukki fan ak juróom-ñett. màggal gi nag kon buñ ko waxee bis moom saa buñ ko tuddee rek kon am na lu waral bis ba la waral bis ba nag moo di. sëriñ tubaa xaadaluhu laahu maxtaaraluhu dafa jaayanteek yàlla suñu boroom jaar ci biir jaayante googu liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne dama fa yéene liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéey boo xam ne ba suñu boroom mbaaree asamaan teg suuf ba léegi maseesu sa liggéey liggéey bu toll noonu te loolu li ma ko mën a may xam naa ne faaw rek mooy ak tumuraanke akuk wéet ak natt yoo xamante ne nii suñu borom dana ma ko teg waaye loolu nag jural ko mu am xemmemteef bu yaatu woo xam ne da koo def rek xemme ma liggéeyal yàlla waaye jaar ko ci sunna yonent bi salallaahu alayhi wa boole ko bëgg gu tar gu yaatu goo xamante ne nii noppaluwul tàyyiwul waaye xàddiwul te itam delluwul ginnaaw benn yoon kon liggéey bi rëy gi mu rëy ak tonawu gu mu tonawu yittey sëriñ bi ak pastéefam rek moo ko ko may loolu nag la ko ko may lépp mën nga koo tënk ci benn baat mooy ak bëgg kon bi mu xamee ne li mu bëgg ci yàlla ak yonent bi suñu borom digal na ko ne na ko na ko jaar ci yonent bi mu xam ne kon boo bëggee liggéeyal yonent bi danga koy bëgg bëgg goo xam ne dalay gënal sa lépp mu daal di sóobu nag bëgg yonent bi wax ko fu nekk wax ne loxoo dëxëra yaat yi wa xilmi wa xidmati wa ruuxi wa jusmaani wa kulli bila sukkuli kon moom dafa daal di xamle rek bëgg bëgg yonent bi nga xam ne xajalu ci kenn yemu ca loolu mu wax ne mahat mahabatiyal muxtaaru sayidana hubbil maxaaniya wal na wal walada mu mel ni loolu rek doon na doy sax bu ca yemoon waaye mu dolli ca dammi wa ahli wa awlaadi fidaawu lahu habdan xadiman lahu muskaana li sanada ko def yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ba mu jeex tàkk kon mu mel ni nit ki li muy wut di ko bëgg da caa war a dem demin woo xam ne ci àdduna deesul nattable kii li mu nekk bëgg na ko loola waral bi nga xamee ne gis naag yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ca dëkkam bu tedd bee di Touba ca Daarul Xuddoos wax ko ne ko dama bëgg a bokk ci ñii nga àndal muy waa ahlul badar sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ne ko ñii kat bokk ci ñoom faat na ndax la ko daan maye tuur deret la te tuur deret moom amatul mu daal di koy xam ne ne ko lan moo koy maye mu ne ko xanaa ay yu tar yu yaatu yoo xamante ne nii sunu borom dina la ko teg nattu la ko di nga génn sa dëkk di nga sori sa njaboot waaye di nga tumuranke tumuranke gu tar mu daal di koy xamal ne ko loolu yépp day nangu naa ko bu fekkee mooy mën a tax ma am li ma bëgg rek muy bokk ci ñi nga àndal rek d'accord naa ci loolu yonent bi sallallahu alayhi xamal ko ne ko damay dangay sama xarit te ma bëgg la te nattu yi daa metti te ku ko mas a tegoo wala ku ko mas a laaj ba bëgg ko comme ni ko bëggee buñ ko waxee li koy mayee rek day daal dellu ginnaaw sëriñ bi xamal ko ne ko kat man li ma bëgg sama ruu gi laa xamul ba xam dana ko fekkeem déet waaye su ma ko wóoroon ne sama ruugi dana ko fekke sama jom dékku na ko kon dafa mel ni wane na tamit ne kuy bëgg dara danga nga ca war a def yitte ak jom jumat mat sëkk joo xam ne foo ca yegg rek danañu xam ne liggéey bi boole nga ceeg pëstéef ak fulla joo xamante ne moo la ko may loola nag moo tax mu soobu yoon wi nga xam ne mooy yoonu géej gi nga xam ne kenn mënta tudd màggal te waxoo yoonu géej gi ndax moo waral tukki bi te comme tukki bi ci la amee lépp li mu amoon yoon la bu nuy wax li waral màggal gi ñu jaare ci yoonu géej gi ndax loolu moo waral yonent bi sallallahu alayhi xamal ko ne ko kon da ngay waaj te xam ne tukki bi kon mooy li mënta ñàkk waaye fekkoon mu sanc dëkk bu tedd bee di Touba te sama borom xamaloon ko ne ko dëkk bi kat danga ko ñaan aar ko ndax Touba xarasahallahu la wax dana yàlla xaar na ko ba noppi kon dëkk bu ñu aar nag te la nga fa ñaan ñu nangu ko sunu borom du la fa mën a fekk di la teg ay nattu kon faaw da ngay génn dëkk bi loolu waral mu waaj génn dëkk boobu di Touba dem fële nga xam ne moo di Mbàkke Xewar nga xam ne foofal la yoonu murit sosoo waaye tamit daanaka foofa la nattu ya tàmbalee ba ni mu fi jógee ngir dem soobu ci géej gi ngir liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa liggéey boobu mu doon liggéey nag day liggéey bu màgg bu tedd boo xamante ne nii sëriñ bi da koo fonk lool te mu ñor ko lool te li la koy xamal mooy la tukkee ci liggéey ba mooy li gën a rëy ci kaw suuf ñu di ko def rawatina ñun ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ay murit dañu ànd ak Serigne Touba bis bi gën a rëy ci àdduna ñu am ko mooy bisub màggaluk Touba. muy bis bi nga xamante ne nii moom la sëriñ Touba wax ne lépp li ma doon bëgg te di ko sàkku sama borom defal na ma ko waaye ci bis boobee la ma ko defal kon mu mel ni bis la boo xam ne sëriñ Touba bi nga xamee ne soobu na ngir liggéey Yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne. wa adharal xidmata xaama jay sasin waaye waxal buhoo xatmaraha min asasin liggéey bi nga xam ne moom laa sooboon ngir liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi dama ko bëggoon lu yàgg ci sama xol ci atum kasa kasasin laa ko bëggoon waaye sama boroom moo ko yeexe ba ci atum jeesasin ci la liggéey ba tàmbalee mooy at mi nga xam ne ci la sëriñ Mouhamadul Bachir mu tedd mi gane jamono at moomu la sëriñ bi tukki woon ci géej gi kon mu mel ni moom yàgg naa naseer lu mel noonu ndax fu mu mas a toll daa mas a di bëgg di wéet daawul tàqalikoo ak fu mu tollu alxuraan ji mbaa mu nekk di bind mbaa mu nekk di julli mbaa mu nekk di wirdu kon moom naka jekk dafa mas a jege yàlla mas nekk foo xamante ne barab la yoo xam ne du bëgg kenn fekk ko fa ba saa buñ ko fa fekkee sax bu bariwaay bi tàmbalee day daal di toxu dem feneen loolu waral sanc santaan yu ndaw yooyu mu daan def sanc fi daaru salaam ba nit ña commencé bari mu bàyyee ko maam Cheikh Anta dem Touba Touba nag yàggu fa ndax euh, juróomi at rek la fa def sunu borom daal di koy génne dëkk ba ba ni nga xamee ne muy 1927 mu di fi jóge sama borom delloowaatu ko fa ci zahir ngir bëggum bëggoon dëkk bi te suñu boroom xamoon ko ni mu bëggee dëkk bi te nattu yi da bokkoon lépp li nga gën a bëgg dañ la koy xañ te sama borom moom saa boo signé moom contrat dara du la koy may ci li nga xam ne moom nga jaayanteeg moom loolu ma waral mu demee noonu. yoon woowu di yoonu géej gi nag sëriñ bi da ca wax yu bari yoo xam ne xew na ca yuñ ko fa teg ak yu mu fa tegoo waaye wax ca lu bari loo xamante ne nii tamit ay nattu la yoo xamante ne nii yu doxoon digganteem la ak tubaab bi waaye nag mu mel ni dafa am beneen boo xamante ne nattum la yoo xam da doon dox ci digganteem ak sunu borom. waaye loolu nag buñ koy wax dañuy tàmbali rek xam leen ne jullit ñi ci boppam suñu boroom dafa am lum ñu digal ci alxuraan loo xam ne mooy li ñu boole mooy li nga xam ne moo ñu lënkale ñu war koo sàmm te war koo topp suñu boroom dafa wax ne yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min zakarin aw unsa wa jaxalnaakum suhuban wa xabaa'ila li taxarafu inna akramakum at atqaakum kon mu mel ni sunu borom xamal nañu ne lan moo tax mu binduñu xamal ñu li tax mu sàkk ñu def ñu ñuy ay xeet waaye xamal ñu nañu ki gën a tedd ci yéen rek mooy ki nga xam ne moo gën a ragal yàlla kon mu mel ni ragal yàlla googu jullit bu nekk ci la war a xintawoo ci la war a góorgóorlu ci la war a topp itamit fexe ba kenn du ko gën a def waaye ragal yàlla mënta am lu dul dangaa bëgg yàlla te bëgg yàlla boo ko defee te muy dëgg lay dind ci yow tiit dindi ci yow nay dind ci yow kañaan dind ci yow lépp lu bon moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne bëgg gi nga xam ne bëgg naa ko yàlla tax na ba mënatumaa bëgg dara bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu tax na ba mënatula bëgg dara loolu boo ko xoolee ci mbindam danga koy wax ndax dem na ba wax ne hubbiya fillaahi wa buxdi fiixi wa buxdi fiixi kon moom xamle na ne bëgg yàlla moom la def muy léppam. jëlee na ko ci tukki bi ndax nattu yi tiisoon na te métti na ndax juróomi at def na ko ci agron garab goo xam ne lépp fa la koy fekk buy taw day fexe ba téere yi du tooy waaye moom jëmmam ndaw bi fa la ko daan fekk naaj bi fa la ko daan fekk te a jóge foofa ndax sunu borom moo dogal loola ca moom. waaye fa la doon tagg ay tagg yoo xam ne di jaar ci yonent bi salaay salaam waaye di jihaat ak noonu ci tagg. waaye wax na ne jihaad googu ma doon jihaad ci sama mbind damaa dem mbax tubaab yi di ci faatu faatu gu metti ma xam ne bu ma ko bàyyiwul ñoom ñëpp dañuy faatu ba jeex ma waral ma bàyyi ko ndax dafa wax ne bu ma ko bàyyiwutoon ñoom ñëpp buñ tuubul am mbas dana dana fi jaar faat leen bañ jeex tàkk loolu nag moo waral mu arrêté bind yooyu mu bàyyi bind yooyu nga xam ne moom la doon def ngir ne dafa bëgg rek yërmande ji nga xam ne moom la ko sunu borom sàkkee wàcce ko ci kaw suuf ndax wax na ne bu budul woon ak jariñ mbindeef yi du ma def senn saa ci kaw suuf kon ana tukki boobu lépp lan la jaruloon sëriñ bi ak li ko taxoon muy dem lan la woon kon mu mel ni sunu njariñ la woon ñun kese waaye moom day ba muy tukki lépp loo xam ne moom la bëggoon ci boromam am na ko ndax wax na ne day tukki bii dolleekuwuma ci dara lu dul yegg rëkk ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ndax laata mu dem ci géej gi seexal na ay seex sanc na ay dëkk defar na ay nit ñu bari moo tax Cheikh Moussa Ka di wax ne ca géej ga la làmbe yàlla ba fekk muy géej mu tànq ca leeru xëy ya naan boroomam waaye moom sëriñ tubaa ca géej ga la dàqe seytaane ki gaayam bu ñuy maaj muy taxaw faratay boroomam kon moom lépp li mu bëggoon amoon na ko waaye ba muy dem ci géej gi sabab ba ndekete mooy sababu xaybati ya an allaha araada an anaala min hujaa waaye wa an akuna saafihan li xaw mi wa an akuna xaadiman fi daw mi kon nekk gi mu nekk di liggéey ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak nekk gu mu nekk di ràmm xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek moo ko taxoon dem ci géej gi waaye tamit ak teggi sunu xisaabu àdduna ak àllaaxira mooy li ko taxoon a dem ci géej gi kon tukki bi la nga xam ne moo ca tukkee di bénéfice mbaa muy njariñ lépp rek ci ñun taalibe yi la dellu si ak jullit ñi nga xamante ne nii ñooy jullit ñi nekk ci kaw suuf ndax suñu borom sëñ Tuubaa dafa wax ne ijxal rujuuxi ba muy wax ak suñu borom dana ko maa ngi ñaan su ma delloo ca dëkk ba ijxal rujuuxi ilaa xawmi saxaadatana wal takfi naa yow ma jamhil xal niiraana sama dellu ca dëkk ba nay texeeg mbooleem ñi nga xamante nii ñooy xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon sérité bi nga xam ne andi na ko ci tukki bi mooy texe gu jullit ñëpp texe waaye tamit jariñu gu jullit ñëpp jariñu loolu moo tax liggéey bi sëriñ bi fonk ko bu wutal ko bis boo xam ne bisub sant lay doon ndax nattu ya la muy métti métti ak la muy tiis tiis sëriñ Touba dafa wax ne jéggale naa lépp ndax man Serigne Touba day wallahu yansuru nii wal xalqu tatbaxu nii fil barri wal bahri za nafin bila darari sama borom defal na ma man may njariñ loo xam ne awma benn lor te lor day sama borom su ma xamaloon ne ma sax fayul ci tubaab yi danaa ko wax mu defal ma lii tax ma mën a fayu ndax lii tax ma mën a fayu moom sama borom dogal na ne nekkul ci man ku ne war naa jàng ci moom jéggale ku ne war naa jàng ci moom jëlale dafa bokk ci melow doomu aadama ci jukko ju baax la bokk rawatina fàtte jëf ju ñaaw ju bon juñ la def ndax Baye Moussa Ka nee na boo ko fàttee mu fàtte fàttelu say mbir kon war na foo tollu far ko def waxtaani kon moom sëriñ bi lim ñu bëgg a jàngal mooy lu mbir rëy rëy rëy lu mbir tiis tiis tiis nanga ko def ngir jëmmi yàlla waaye bul ko def ngir sa bopp wax ne tubaab yi de dañ maa ba ma xam ne tooñ nañ ma waaye li leen dimbali moo di dañoo tooñ jaam boo xam ne kat du fayu mukk ak tooñaange goo xam ne ci boppam rek la jëm waaye képp koo xam ne laal nga diine mbaa nga laal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man Serigne tubaa da nga am lanteek man ndax lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatuhul xara wa inni ahmadu moo ma tax a jóg waaye loo xam ne ay nattu la yuñ teg ci sama jëmm ji man Serigne tubaa lu mu bari bari lu mu tiis tiis rek jéggal naa leen ko ndax man Serigne Touba aw ma lor te sama borom moo dimbali ndax moo waxoon ne jaawastu naasa wama fi aydi naasi ila rabbi naasi man Serigne Touba jéggi naa nit ñi waaye jéggi naa li ci loxol nit ñi waaye tamit soxlaalu ma nit ñi dara ci kan laa soxlaal dara mu ne sama borom yàlla képp laa soxla woo te ba ma yeggee ci sama borom mi nga xam ne moom rek laa soxla woo teral na ma teraanga joo xam ne soxlaatuma fenn dara moo waxoon bañ moo taxoon ba ñu koy wax naan ko jàngal te jublu ci buntu buur yi mu wax leen ne leen man sëriñ Touba rus naa di yéqi ay jéego di jëm ci buur malaaka yërmande yi di ma gis di wax ne xool leen Ahmadou Bamba ma nga nee jëm ci bunt buur yi moo taxoon mu def xaalis xasidaam gu siiw googu di xaalul yarkan li ab waabi salaatini taxus jabaa isa tuxni kullama wax ne wax ne leen ca biir ne leen fa qultu xasbiya rabbi bi bihi waaye walastu raadiya xayral xilmi wa diini man mii Serigne Touba duma yittewoo dara lu dul xam-xam ak diine ci liggéey gi nga xam ne moom laay liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa waaye tamit walastu arju wala axsa siwa maliki li annahu jalla yuxnini wa yunjini anni ufawidu axwaali liman hajasu xan aali xan fusiyam xajal ni nan laay jëlee sama mbir di ko wékk ci ñoo xamante ne ni ay miskin lañ ci seen bopp mënaluñ seen bopp dara kon moom sëriñ bi tawhid ak wéetal yàlla ak kennal ko da caa yëmut ak kenn moo tax bi mu sooboo yoonu géej gi foofu la gënoon a mën a wéetale yàlla boroomam ndax bi muy waaj a tukki am na bis boo xam ne day julli mbooloo mi bari lool ba nga xam ne bi muy lal si jaada gi dafa am ñu doon xëccoo ba bëgg a xeex ci jullikaay bi ñu ko bëgg a lal waaye wax nañ ne sëriñ bi dana leen bàyyi leen sama jullikaay bi ndax jullikaay bi danaa ko lal foo xam ne kenn ci yéen du fa jege képp koo xam ne mas na koo yëkkati rombul say woom waaye danaa fas yéene ne ko dankum ba fu waay tollu di ko séen kon loolu moo waral bisam bu tedd bi mu woote muy màggalu Tuuba neexul ba neexul fu ma dégg global damay jàpp ni kenn rek ay borom waay waay Assane Fall taalibe Serigne Fallu Mbacke bii di borom global textile bëgg lool Serigne Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaaq ba tax na ku ne ko jàkk rek xam ne lii di makaarimal axlaaq nekk ci moom macha allah di ndaw bu ñemee xëy lool guddee wàcc ana li ko waral soxlay askan wi rek waaye bëgg réewum bii di Sénégal mu jël ko mu yeesalaat place bi nga xamante ni képp ku fa da ngay daal di réer waay waay laaj nga xam ne moo di liiru jaar Assane Fall global textile indil na leen ay yu am solo man daal moom tuddee global textile mu ne fu ne waaye xool leen tissu ngénte yi nga xamante ak mariage cérémonie ak bu mënta doon màggal Tuubaa gi nag xool leen arrivage yi ak lii nga xamante moo di gàmmu gi sax da leen ko waajal ma ne waaye waaye jëratul génn réew mi de mboolem xeetu sañsi ci jigéen ak góor waaxuli rek dem ba global textile da fa fekk ndaw yu ànd ak taalube adresse baa ngi nekk ci diwaanu Parcelles Assainies unité 12 près du Sénélec bu fekkee 88 bu fekkee beneen numéro bi 78 193 35 35 da ngeen fa fekk ki nga xam ne mooy la PDG di Assane Fall euh, borom global textile moom laa tuddee king of the king. biyaana min xadim musil madina baraamillahu ladal konaaki min kulli jaalibin ilal manaaki أصب أن الله في قرم بسا قبل مبارس رواني خلبسا دان يريم عند دومي لو بما أغنى أني تصومي يسرني المنى لدى لي برولي من خادني ما خاب أن كل